Sénégal ubbi leen nopp yi tetal télé yi Casa Porot ñëw na ak KKD kër desante la dangay ree ba ngaan Pakabo moom de dafa réew lameñ wa ñaaw jabaram asu yaru na yaatu na kenn du gis meram jëlal ma ndikas moom de dafa ñàkk jom tànk ba gaaw jabar ja nee na day dóore Pablo dotom na day nettali Debs am na doole loxo ba gaaw tey sunu koor gi ren dangay ree ba ngaan bajina bi jol gaa joolu jaal kaasa joolu jóg kaasa joolu jaal kaasa joolu jóg kaasa kaasa man sa yoo yaa jug bee jug banu jug wanu mus te yow ëw ëw ëw tey ci ton yeete da ma yàmm boo man wutuma gis yi tey ci TV de xamtim tom benn ma koy te yaay def nii laay gis nga xanaa tey dangaa daaj te may ta boutique non non deew ma fenn dangaa daaj aéroport gars yi fu ñuy dee kii gars yi noonu si deew ma fenn tey yaa def yii nii nii toi merci damaa sañse nii tey tey dama xool dafa sedd sax merci たグッズウェイトグッズウェイトあってててだないでああお Merci. T'es pas poli. Dans ma salle, c'est ni. Mataya, t'es mon mataya. T'es mon mataya. T'es mon kaye bangye. Nan, t'es kuya se couper au tak. Ah, lol, nek na dal, nek na nek na. Ouais, mun nga ataya tout ni. Ouais, mon c'est plat. Ma wax na nangoy akula. yow yow moo profil doon. yow da ngaa dëgg ah, ah damay booy eh duguma dama a morom sama doom moo la dese léegi. dinaa waaye sa tëtëral moo jeex laa la wax. waaw wax nga naan ma waaw dama nii laa la wax eh ma ko ci sa kanam gi mel ne pont à séen yi ah ci biir waay xool ma ko. yow booy eh, laa la booy. yow yow da ngaa dëgg sama tuuti na at yooyu. ah damay wax nga wax. yow Pay da ngaa ñetti fay de. dama la la booy ma la wax dama la yow man a pang fa may wax ngay jëm a tasa tasa ba ma tasa ma tasa tasa ba mu naqul rek. nga mu nuyu yooyu nii yow sa payaa waay. noppi waay ah, naa naaj paya. waaye mbir yaa doon sax sa kaw sax sama doom moo ñàkk ci muy bëgg ñàkk fayda rek ah. xale yu ndaw dama góoroon fenn ngeen jàpp de accolade nii rek Sénégal koo gis rek ma ne la bisimilah accolade moom pour lan loolu kañ lay jeex Sénégal accolade accolade accolade ak feebar yi bëri ci dëgg bi accolade bi xanaa su yàggee sax ñu jël problème de seet ah waaye yàq nañ sama julli bi ni. da koy def sa laa xam est-ce que dama yëkëti wala ma génn dama ak mom sax wala damay comme cette place laa waxoon rek xëy na yàlla dina ma jëgal loolu kay amul benn problème mais suñu borom moom dama ko baaxlu moom dina ma jëgal si cette place ok ñëw naa un jour allahu akbar yaa jug bee jug banu jug wanu mus jug ilah nga xarit sax lan. papa léegi lii nga bëggoon xaw ma yëre ngande gi na la koy solee di génn si biir. fii nga fël kon na nga xeeb li nga def yow. lii nii dina ko sol mën naa. waaye xam loo dem waaye doo dem waaye. wuyu ma boo si nga boo fi tëggatee baat rek mooy famu nga doo doo dem yow lii xanaa ci yow waaye demal nii waaye nga dem sa bu doon lool nga delloo si kër ga léegi xam nga. xoolal ma man bu may safal mbot mel ni mbot mbot sol solgan laa xoolal ma ko rek yoo xam nga ne yow fi nga dem moom kër googu tas na sa blanc bi na nga wàññi ko nag bala gaa gis a teg la néew ñaa ko fayda rek so dool sol lu baax ah du sol ay loo xam kenn xamul tontu yàlla dama bëgg a ñëw sa kër léegi a yaa ngi yor sa jéeg bu toog munoo doylu xanaa doone man maa la dese kon de amagoo ko. yow may ma yow sa néew jëkkër maa ko sàng. te ba ma koy sàng lu tuuti laa fa fekk lu toll nii laa fa fekk yoo xam naa xamoon ne sax yow man bu ma la xoolee laa xam ne yow ba nekk say sax amoo. yow ci li nga foofu. Ah. li ma la wax jëlal sama avance jëlal sama avance billahi billahi wa rasul ne boo ma jëlee dootoo rëcc ndax xam naa sama jëm bopp lenn mën naa te trois choses yoo xam ne day ci bàyyi xel xam naa loolu samay attaqué yoo xam ne nii nii samay rotation sama nii nii ak samay vërgët ah yooyu yëpp waxuma ak samay jaji jaji yi ma yow ku ñàkk jom ma yooyu waxuma ko a jug wanu mus a jug Casamance yoo yoo yee Casa di Mansa et tam ya di commencer Casamance maa ngi ñëw fii fii ma toog nii maa maa ngi ñëw xob lu xaw ma tàngoor la tàngoor ren bi lekk di togg moom xaw dañ ñoo ne xaw mu bakkaal bakkaal bu muy moomal ah man man kenn du ma lay man tàngoor bi ma liggéey ba sonn boo compté sa sa tàngoor sax ñun xam man xam naa man man du ma sonal ay sol di di lakk fii di ñoom xaw ma. Adi la. Adi ndax foofu la lan la sax. ana Adi. nijaay. looy lan moo tere wa. nijaay seetuma. seetuma mooy lan. ah en de nijaay. setuma woolu ma. Mhm. setuma woolu ma. Eh, setuma woolu ma daal mënoo leen yéen yéen lu ngeen ñàkk fayda man xaw ma lu tax jigéen ñi ñàkk fayda rek yéen weeru kool bi ñëw mu doon weeru promotion ngeen wala war war a def profito nga wool ko benn am ko fukk nga nekk fii naan ay setuma woolu la. setuma woolu la affaire yi ñàkk fayda yooyu noonu. bu setu leen am ful. ñàkk fayda waay. dengan wal wal a kol bi weelu sutul la weelu weelu promotion man maa woorul su ma setul du ma woor nekk fii ñàkk fayda ma setul du ma woor xam man bu lu wax man sax nga may indil ay non man ak fi ñen ñen nekk fi def inventaire nek fi def inventaire naan setuma yow ñaar ñaar yon nga nga wax fii setuma ñaar yon nga def inventaire lo mbay sen inventaire yi ngeen wor wer wer koor bi weelu setuma de weelu barke weelu sutul la xamna sa tangol bi may sentil bi sa xamna yow yaa ma ko teg parce que wolo le ngeen tak mu wacce fi tangol bi di ñu ray ñun ñu wol ba pare mu wacce fi tangol bi di ñu sona ku ne bay sey ngeen di def ngeen wol nak responsable. Ah, man sama nak ku ci de. xawma sa fa la xawma ma naan naan ci ci ma woon mau, fii ci mau, woon ëpp mau. Satu mak, dua Satu mak, dua Satu mak, dua Satu mak, dua Satu mak. Toko, kisah, kasih juga. Yo, yo, yo. Ini jahit, la rek nijaay déedéet yooyu xanaa gisoo may fëgg fii di ko dóor nee na may làppatu ma nijaay bu ma def gisuma fi yooyu de ay xanaa gisoo yooyu mu ngi fi yooyu fi yooyu ñoo ko laal yooyu day baax na ah. comme yooyu ñoo ko laal ah. baax na léegi dem de yow de ah, demal maa ngi génn de waaw maa ngi maa ngi dem dégg nga nangu woo di di di di lambar fii rek Ah. ah papa perte boobu dafa yabaat trop perte boobu man moo tànn tey ma toog fii di wax ak doom bi doom bi daa tànn rek perte boobu toog fii nii di ci ci di ci ci toi booy bi dafa maa booy dafa bay de booy bi xam naa si man ma yow de ak yaa perte boobu toog fii nii di band bu digg nee na man leen xas a booy booy yaya pe yaya pe daf ni daal ni daal ni daal ni daal yaya ni daal waaye mooy yaay mooy yow. 근데 너무 왜 줬네 줬네 왜 줬네 뭐 때문에 이거 앵글 지금 줬 이거 줘에 니다 니다 에 뭐뭐 주세요 뭐 뭐야 boy 에 니다 에에 니다 니다 에 당한 나 당한 나 와와야 뭐에 야뭐 해요 니다 니다 야뭐 야뭐 예미 야뭐 예미 빨리 나 사다가 뭐 해도 나나왜 또 뭐다 nói tình này quá mà rồi quá mà rồi đi đi đi ăn bánh chích đi quá mà rồi quá mà rồi Dila liu joy. Dila yo demi dala yo pa mun nyati pai na yo. Man dama tom dama tom bula ni yo joy. Lai joy ni tua. Te te te man ti na na dum lu da pai man mu ye mo ho dam mo ye mo he. Dila. Dila dila eh eh. Dila. Wa wa ya wa ya ta ta yo ya ja ba yo. Ta mo ye mo he man da mu ko mi joy. Tam es bi fiam. Ni joy ya ngi mo ye joy. Jogo la wa ni ya na da ko joy. Joy. Jogo. Ni joy. naka la nga jóg. yéen tanga jéem. aywa dama ne nga taxaw. taxaw nga doon aywa nañ la. jàpp nañ tene bi tene bi tene bi. jàpp nañ tene bi muy sama ndeyoo jot. kon dama doon wooy nii de. yaa di yaa loo moo tax jooy. yow yaa yooyu jooy yow yu tànn yi nga toog ci sa bopp. na sa bodaat ba ci affaire yi foofu noonu. te sama ndey tii na naa sa de. Sénégal ubbi leen nopp yi tetal télé yi Casa Porot ñëw na ak KKD pooru Kër Desantel